Yeah. jaa ngeen jëf mbokkeek xarit ñuy topp file ci Gambian Talents uh, TV uh, dal leen ak jàmm ci xibaar yi uh, li ci gën a fës dañ koy dooree rek ponk yi bokk na ci Fatou benn Souda di rek toppeekatu ëtt atte kaay bopp àdduna si àdduna rek ci juré bi nga xam ne rek kujje gi amaloon na ko xamle na rek mbir maa ngi ci rek yoon ñoo ngi rek daal di dajale yi nga xam ne rek ñoo di jëf yi ngir rek mën a andi ay firnde xalifa Sall weddina xibaar bi l'observateur rek fësal li ci rek euh, xam le ni taxawaayub Khalifa Sall ci euh, jongantey gox euh, goxaan yu ñu dëgmal kii di Bougane Gueye Dany bind na ab bataaxal njiitu réew mi bii di ko rek ci fàttali ne bu bàyyi woon xel jafe-jafe yu rek askan wi di dund rek xelam dina rek nekk ci leneen lu dul rek jënd li nga xam ne rek moo di fafal naw maanaam ab avion ñu rek euh, wax euh, ci euh, leneen bokk na rekk ci makki sàll dina rekk amal ñeenti fan yi tukkib nemmeeku yoo xam ne rekk dina ko def ci biir réew mi mbokk yi li moo gën a fës ci bopp xibaar yi bu ngeen rek taaxirloo ñu dikk ci firi fàcce gi. jàngeen jëf nuyuwaat nañ leen rek gën gi nuyoo dar leen ak jàmm ci dëggi-dëggi uh, xibaar yi bokk na ci rek uh, nu ñu leen ko junjee woon ci bopp wi uh, président Macky sàll rek dina amal li nga xam ne rek moo di ñeenti fan yi tukki ci biir réew mi ngir rek daal di ubbi ay raglu ak i rek yoon raglu yooyu rek moo di ab hôpital ak i yoon yoo xam ne rek budget bi toll woon na rek ci li juróom fukki tamñeret maanaam juróom fukki milliards ci gafakawuk Sénégal ca Kaffrine Kédougou Médina Gounass ak rek Tambacounda dina fa rekk daal di amal li nga xam ne rek moo di euh, tukki boobee rek ngir man ni rek daal di daloo euh, yooyule euh, barab tukki mi nag rek dina tàmbali ci gaawo gi Euh, ñu wax euh, ci beneen euh, ponk li rek mooy ki nga xam ne moo di Omar Gueye yore kàdduk nguur gi nee na rek Macky sàll kenn mënul tax rek ba mu kenn mënu kaa rek ëttal ba mu dellu ginnaaw ci mbirum li nga xam ne rek moo di LGBT di rek mbirum ngóoru jigéen ci biir Sénégal ba te rek nee na affaire yi gars yi dañu rek daal di yaatal bunt boo xam ne xas naa ubbeeku ba pare la ñuy bëgg a yaatal waaye taxawaayu Macky sàll euh, ci mbirum góor jigéen leer na naññi euh, du fi rek amee fekk ñoom ñoo ngi nekk rek ci li nga xam ne rek moo di ci nguur gi kookee di Omar Gueye yore kàddu nguur gi moo ko rek daal di xamle euh, ci RFM ñu ba tey euh, ci beneen ponk comme ni ñu leen ko junjoo woon ci bopp euh, xibaar yi benn Bensouda euh, toppeekatu ki nga xam ne rek moo di attekaayu àdduna bi gën a mag di rek ab sax gambeen daal na rek yëkkati moom it ay kàddu jëmale ko ci taskatu xibaar yi ginnaaw bañ ko laajee ci xew-xew bu fi amoon fan la rek li nga xam ne moo di yëfi toll nee na ñoo ngi rek ci lu ñu gi ngir rek mën a am firnde yu gën a wóor ngir rek doog a mën a indi benn dogal bu fekkee daañu ko rek daal di amal ginnaaw mu amee ab tukkib nemmeeku file ci Sénégal ba sax kii di eh, njiiti réew mu Sénégal daal di ko rek eh, takkal raayam moom fàttu benn sudaa di ab rek di doomu Gambien. Eh, daal na rek xam le ni mbir mi daañu ko rek topp ba rekk daal di ci am firnde yu gën a wóor daal di ci doog a mën a addu ñu wax ci leneen xalifa Ababacar sàll weddina xibaar bi l'observateur fësaloon di ci rek leeral taxawaayam ci jongante yi gox goxaan yi di ci xamle ni ne amul ku muy jàppale ci taxawaay farub euh, Ndakaar ba woon maanaam meerub Ndakaar bi woon weddina rek ne loolu daal amul moom waxul ne dina jàppale diw wala du jàppale kenn waaye lu ci mënti am rek moom ci jëm boppam bu jotee ngir mu siiwal ko euh, dina ko rek siiwal ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo di euh, farandoom loolu mu ko daal rek xamle ci fësu xëtub Facebook am moom mi la di Khalifa Sall nekkoon fi farub Ndakaaru ñu tëjee xibaar yi ak ki nga xam ne rek moo di Bougane Gueye yi daal dina rek joor Macky Sall euh, ginnaaw bi mu rek yëglee ni jënd na li nga xam ne moo di fafal naaw maanaam avion euh, bu bis bu ñu rek euh, daal di ko rek ñeel moom mi la di président Sall daal di ko rek fàttali coono yi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy dund daal di ko rek wax ne moom bu bàyyi woon xelam tuuti wala dafa fàtte fàttelu waaye dina doon xam rek ni Sénégal yitteewul li nga xam ne rek moo di avion am na leneen lu gën a yitte mooy ceeb bi nga xam ne ak dëwlin gi daal dina rek yokk seer ba jaaxal askan askan wi euh, mënoon nañoo xool nas lañ ci andee saafara waaye avion du rek li nga xam ne moo di euh, priorité moom mi la di Bougane Gueye Dany moo daal di xam ne lu ne yi li moo gënoon fos ci xibaar yi fii la ci Gambian Talents TV euh, ku leen ko doon jukkil seen xarit Mouhamed Mbaye Garmi laata lool wéy leen nag di seetaan suñu programme tele bu mag bi la di Gambian Talents TV dig leen daje beneen bu ci yàlla àndee buuri buuri mucceeg muccule saa borom am na ko yàlla na ko def ci yéen